loo nekk ak ci foo mu mel ni kon boo seetloo yooyu yëpp te ok waxin la rekk ñu bëgg ko tàmbalee parce que li ci ëpp sax ci leçon bi mën na am suba ci bëccëg bu fekkee ni yaatu am na ñu mottalee ko ci bëccëg bi te moo di yii nii alluwa yonent bi la concerné mais mu des nag njàng mi nga xam ne nekk àlluwa penc mi ñoo ko soxla àlluwa penc mi itam li ci yàlla jàngale yépp ci ñaari baat rekk la ko tënk alam ak araayit li yàlla bëgg wax waa penc mi yépp tënk na ko ci alam ak araayit bu subaa dinañ ci ñëw benn par benn mais bi ci gën a am solo ñu war ko retenir dama dégg fan yi ñuy wut lu ñuy naxe nit ñi nan diw bi mu fi ñëweek léegi réalisé na nangam réalisé na nangam réalisé na nangam ma ne waaw alam tara kayfa faala rabbuka bi aad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد معنى buñ dee nawal nit lu mu def wala lu mu réaliser ci ci réewam te yàlla tudd na ñi mu tudd ba noppi tudd na aad tudd na iram tudd na thamud ah? tudd ñëpp ba tudd firawna wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilaad te ci biir jamono képp ku réaliser lu lu jaaxal nit ñi walla projet bu bu bu gigantesque ñu ni c'est un projet pharaonique di wane ni dañ koy tolle lekk la Firawna defoon et pourtant ñooñu yëpp ak lañu def yëpp yàlla nee dina leen caw ndax inna rabbaka la bil mirsad waaw yàlla nee na matim ndax bu fekkee dangay tabax dëkk yépp te yépp nga toroxal leen yàlla nee na nga am affaire ak man waaw waaw ba tax na kon nag bu ko defee kenn ku nekk nag yor sa laara sa kaala waaw ku ne di télélé li télélé li nangam parce que dig nañ la rek dinañ la sarax nangam daf ko jar daf ko jar waaw e nee nañu président nee na dinañu sarax juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards yi dañoo xam fu mu jóge ñi ko fi indi lan moo toxoon ñu indi ko fi problème mu Sénélec bi ñu am courant yi coupé un peu partout ak li ñuy fayloo nit ñi kenn xamul nu mu toll ak route yi inondé un peu partout nit ñi amuñu fu ñu jaar oto yi amuñu fu ñu jaar waaw yooyu yëpp foofu la gënoon jekk foofu la gënoon jekk waaye dem ci borom tañ laa yi rek kenn ku ne dajee la ay nangukatu àddiyam ñuy lay wax di la Tiwaawan nag moom da ngay defe ni meeting a xew waaw ñi ci des sax correct nañu Njaasaan correct nañu Ceneba correct nañu hmm? un peu partout ci Tuubaa it sunu maam bu baax ba wax na la mu koy wax et c'est très très clair waaw ni ko bu fekkee ni def nga fi lu nekkit ma di la yëgal ni élection moo su am ba nga gàñee fi loolu li mu firi lan la ce qui veut dire que mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demandé roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne sëriñ Touba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rek ak seen taxawaay la ñu def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax na kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii ak wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël na ay disposition euh, fontu baaxul fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ni bu ñu accepter candidature Amadou Ba booy boo ñu ni accepté nañu troisième mandat bu Macky Sall. elle a parfaitement raison elle a parfaitement raison ba duggaguma woon ci biir yëf yi mais booy ngeen pare waaw waaw parce que font baaxul on en a assez waaw. pare leen daaw sëriñ si fii yëpp lu ñu jàng jàng naa ko waaw te ëpp ñu may taalibe nag waaw bu ko defee kon nag bu subaa dinaa leen wax ñun fi ñu jëm sur le plan politique ak nan la ñuy pare sunu élection ak nag nan lañuy ñuy ñafantee ma wax leen ko waaw ngeen baal ma du ñàkk teggin du dara waaw du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a wax ak moom waaw ndax loolu rek la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nañu organiser wu te nañu bàyyi xel suñu bopp waaw xam naa mbokkuma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xamuñu ni man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale waaw jeex na waaw tas parteek yii yëpp ñun ñoo ca jiitu woon tasuñu woon toog fii nii dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi mam ma jaw ngeen bal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na Moustarchidine mu ne ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb waaw waaw loolu di maam ma jow mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag waaw parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fii lool waaw xam naa ci dara daana <laughs> am na ñu may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ni fayda rek a koy mottali waaw li may wax tooñu maa tey baalu maa rek mooy tax borom baale ko et puis c'est tout bu ko defee kon nag suba dinañ yeggale kuur bi ci diggante alam tara ak araayit li ci nekk yépp